ah jëlaale mata sama ñu fekk la nga tiim sa boolu ndambe. Eh, ñu eh, gis ne président Macky Sall mu jël lan ci nga ci avion boobu anu wala. non loolu wax dëgg fa neex yàlla ànduma ci. ci avion boobu. nga dëkk bi ñëpp a yuuxu benn yuuxu dañoo sonn sonn boobu nag moo waral mu waral defal xelu sénégalais loo xamante ni xam nga ñëpp dañ am si lu ñu nekk bu loolu weesoo mu soog a war a mën a jënd avion mais pas pour le moment parce que amuñu xëy. ndaw ñi amuñu xëy. non gisuma loolu da parce que ñun ñi nga gis ni dañuy saare suñ suuf sax duñu am fuñ ko soot dañuy saare suñ béton duñu am fuñ ko sotti dëkk bi kenn tabaxatul si matière bi ma nekk boobu maanaam liggéeyam ni mu doon doxee doxatul noonu ma jàpp ne kon président Macky Sall moom moo waral lool moo jiite réew mi mais du ma teree lekk ngi lekk yaa ngi naan ok jaajëf